Burkina moo ñu wan ginnaaw Niger moo ñu wan kanam Burkina moo takk ceinture bu rouge bi Niger moo takk ceinture bleu bi ma fàttali leen ni Niger doon na Burkina 3-0 nag quatrième combat baa ngi nii. arbitre bi mu ngi noonu Niger bi daw na sol ko Niger daw na sol ko diggante Burkina ak Niger. diggante Burkina Faso ak Niger drapeau CEDEAO fii ci arène nationale Sénégal organise ko mboolem réew yi bokk CEDEAO yëpp ñëw nañu mennu Mali rek a ci ñëwul combat bi dox ci diggante Burkina ak Niger ah arbitre doon na wax ak ñoom Burkina bi daw sàcc ko waaye Niger bi mu ngi koy fàqat sol na ko da ko fàqat doon ko jéem a sol. mom Niger bi Burkina ak Niger ñu nga solonté ca kaw ñu nga melni ñuy bal <laughs> ay lamb Burkina Faso Niger ñaar ñi na xamanté nañu digënté ñaar réew yi ndax réew yi yag organiser CEDEAO la ñu réew yi yag dem CEDEAO burkina bi baa ngi koy sol Niger tëj poqataan ya mu ngi koy sol takk na ko ca kaw burkina bi dafa daw di ko sol Niger tentem mboot mu wàcc arbitre bi soufflé na lu xew arbitre bi nee na leen a ah, jox na avertissement Niger bi jox na avertissement nigérien bi naa Faso Niger da ko doon fàq mu daw mu daw di ko jël mooy dafa def rotation de corps Burkina ceinture rouge Niger ceinture bleue Niger ba daa bëgg a dóor Burkina 5-0. arène nationale drapeau CEDEAO ñu ngi ci final yi. Burkina Faso Niger. Burkina moo ñu wan ginnaaw takk ceinture rouge. waaye Niger nga ko sol ca kaw. Burkina Faso Niger. yéen a ngi ci drapeau CEDEAO Sénégal organisé ko moom Sénégal nag dem na final ci luur yi Sénégal xale yi ñu gën cee ràññi ordinateur xale bii di mbalka mag ak booy fay Burkina Faso Niger arbitre baa ngi naan bëre leen ñu nga solante ca kaw épaulante ñu nga solonte ca kaw épaulante ah arbitre bi mi-temps na combat bi mi-temps na ñaari combat yi jàll yëpp mi am na ci waaye saa yu ñëwee Niger Niger dóor Burkina Niger mii nag Afrique gii boo fi génnee Sénégal bokk nañ ci ñi fi dàq bëre ndax xam ngeen ni Niger seen seen seen sport national lit la. lit boobu ñuy wax sikaak moom moo am Niger Bamba am na lit bu nuy wax sikaak ci lit gréco-romaine lañ ko inspiré moo am Niger lit boobu moo am Niger mbokk mi nee na ma Nigéria la Nigéria day xamoon naa fa footballeur bu gaawoon waaye bu ñuy wax Agowa te gàttoon lool Agowa ku doyoon waar la <laughs> ey Agawa waaye bilaay ah sonaloon Sénégal bu dugalee day piree day mel ni kuy naaw. arbitre bi soufflé waat na bi dox ci diggante Nigéria ak Nigéria ak ak Burkina Faso Burkina moo wane ginnaaw takk ceinture rouge. Nigéria bi moo moo moo wane kanam. centre rouge bi burkinabé bi la nigériens yi nag ni ñu gàttee noonu la ñu doyoo waar ni ñu mën a footballé noonu la yooyee eh, doon na flexionné moom burkinabé bi nigérien bi ñett ko ci suuf ñett na ko ci suuf ñett na ko for na tànk ba nu mu koy def da ko yan wala ko daax na ko daan na ko daa for tànk ba muy daw di ca jéem a génn mu def rotation muy daw di ca génn mu sañaxal ko mu jaaxaan waxoon naa la ni leen nigérien yi dañoo doy waar nigériens yii dañoo doy war béréb bi aay nañ ci football it aay nañ ci ndax coupe d'Afrique bari na luñ ko jël sama xel dem na ci seen jour boobu ñu doon wax Agowa ak Rachid. cinquième combat de la soirée dox ci diggante Nigéria ak Burkina Faso. ma fàttali len, nag ni len nigeria dorna Burkina Faso 4-0 5e combat baa ngi nii seen ñeenti mbër jongante nañ fi ñenti ñenti Nigérien yëpp daan kon Burkina yi ben yaakar bi lañu déssé nañu xol nu wane ni mu jéki gëtëm nigeria Burkina Faso Nigeria Burkina Faso ay luru lañu nak ay luur lañu de waaye Nigéria bi ni muy joxe tànk bi daa mel ni wóolu na tànk bi de arbitre baa ngi naan béré leen baa ngi naan béré leen mu ngi koy jéem a wàkk mu ngi koy jéem a wàkk solante nañu Nigéria Burkina Faso Burkina Faso ceinture rouge Nigéria ceinture bleue boo xoolee nigérien bi pied droit la teg burkinabé bi teg pied gauche ñoom ñaar ku yooru dangay ngay sa tànku moroom Nigéria Burkina burkinabé bi nag da koy jéem a fàqat ndax nigérien bi dafa xaw a luure bu ko fàqatee da koy déséquilibré arbitre bi suflewaat na dafa arrêté woon ngir ñu bërewaat ñu fàttali leen Nigéria Nigéria moo ñu wan ginnaaw Nigéria moo ñu wan ginnaaw mooy bleu Burkina mooy rouge. ñu fàttali leen ni leen Nigéria dóor na fi Burkina 4-0 yu gaaw seen ñeenti mbër ñoom Nigéria daan nañu ñeenti mbër yu Burkina Faso seen cinquième combat baa ngi nii dox ci diggante Nigéria Burkina Faso. lii mooy wuréw a dem na këng waxi mag dem dañ tàlli ku war a warlu war na mbaam arbitre bi arrêté na combat bi lu xew. arbitre bi arrêté na combat bi lu xew arbitre bi ñëwaat na di wax ak mbëri soufflé waat na combat bi mum arbitre bi combat bi dox ci digënté Nigeria ak Burkina Faso Nigerien bi nak mu ngi chercher for tank Burkina bi lu mu koy def munu ci na ko ndomba nu mu koy def Nigéria Burkina daan na ko Nigéria dóor na Burkina 5-0 Nigéria dóor na Burkina 5-0 hey. Eh. Nigéria dóor na Burkina 5-0 waxoon naa leen ko ne woon naa leen Nigéria dañoo mën a bëre dóor na dóor na Burkina Faso 5-0 waaye nag Burkina Faso yi démérité wuñu ndax def nañu li leen war. jóge nañ seenum réew ñëw di ko défendre am defet loolu moo ko sport ñoo ànd Nigéria dóor Burkina 5-0 mu des nag càppaandaw gi sénégalais ñi daw di ñëw ñumu doon ñii daw di ñëw ñu mu doon ñi de pël la may fàttali mu ngi noonu Sénégal Niger Sénégal Niger Sénégal moo takk ceinture bu rouge bi Niger ceinture bleu Niger a ngay cherché mais Sénégal Sénégal moo ñu wan ginnaaw ñooy ngemboo sunu ngembul cosaan lii rek muy dongali Sénégal Niger Sénégalais bi Sénégalais bi ëmm na Niger bi. wër na ko ndomb nu mu koy def nu mu koy def wër na ko ndomb Sénégal daan na Niger Sénégal am na un am na

deuxième combat baa ngoogu Sénégal Niger encore Sénégal ngembulu rouge wala ceinture rouge Niger ceinture bleu ñaax na ko plaqué mu bañ senegal Niger mu ngi ko mu ngi ca kaw moom moom moom Sénégal mu ngi koy fàkk ñu fàttali leen Sénégal doon na fi Niger sànq nag bàyyantewaat nañu senegal Niger Niger bi xay xupp na ko waaye senegal bi bougé Sénégal Niger ñu ngay léewtoo ey Niger moytul Sénégal mi arbitre arbitre baa ngi naan bëre leen fàkk na bopp ba ca kaw fàkk na bopp ba ca kaw moom sénégalais bi Sénégal Niger Sénégal ngembulu rouge Niger ngembulu bleu Niger senegal senegal Niger ñu nga sëgg rek mu ngi koy jéem a faqat sénégalais ba doon faqat nigérien bi rëcc mu ko doon jéem a faqat mu rëcc Sénégal Niger ñu ngay léew too ca kaw. sénégalais bi ruuf na ko ca kaw sénégalais bi ruuf na ko Sénégal Niger ñu fàttali leen ni sànq Sénégal daan na fi Niger seen deuxième combat ngi nii Sénégal Niger ñu nga roofoo ca kaw waaye Niger ndax so sëgg bi jig na la am njool du sëgg senegal Niger Sénégal a jéem fàq Sénégal Niger ñu nga sëgg Sénégal Niger ñu nga sëgg ñu nga sëgg. सर अच्छा ली जरा सेनेगाल निजर Zené Oumana diggante Sénégal Niger Niger moo dawoon doon ko jéem a fol daw na di ko jéem a jël Niger a ngi cherché Sénégal Niger Sénégal Niger ñoom ñaar seen combat bii xaw naa yàgg lool waay dañoo xaw a tolloo doole sénégalais bi saa yootoo di plaqué nigérien bi day def rotation le corps Sénégal rouge Niger bleu sëgg bi nag baaxul ci njool te Niger dafa njool Sénégal Niger arbitre baa ngay wax ak ñoom naan béré leen arbitre bi arrêté na combat lu xew da di jox avertissement wala boog avertissement verbal béré leen baab ma ñëwaat dina leen avertir voilà mu ngoog ñu ngay léew daw na jël ko moom sénégalais bi Niger day jéem a yóotu tànkee ndax loxo yi jot na. Sénégal Niger waaye sénégalais bi. ni muy bëreeg Niger bi bu ko xeebee mën na ko def dee ndax Niger dañoo mën lamb dañoo mën lamb daw na doon ko far tànk bi mu rëcc sama xel dem ci Momadou Yakuba nga xam ne ni sonaloon na Sénégalais yi lool doon na jéem a flexionné daw di ko jël mais Niger bi daa def rotation moom Sénégalais bi Sénégal Niger. seen deuxième combat ngi nii premier combat bi Sénégal moo ndam. war naa jox ah, ah, ñu ca kaw Sénégal Niger sénégalais mbaa nga koy jéem a fàq. waaye Niger bi nag dafa vigilant saa yu waaj yi ñëw da koy gis ah Niger ko nga koy a ëñ ko jéem a wër ndombo sénégalais bi moytu lool Niger bi daa njool bu la wet bu takkee nga jeex te boo ko mbootee du jeex am njool ndo neexu la mboot Sénégal Niger for na tànk ba sénégalais ba for na tànk ba lu mu koy def da koy yenn walla lu mu koy def ah lu xew lu xew arbitre bi jox na ko avertissement moom sénégalais bi. amul ah, droit jàpp daa jàpp tubéy bi seetlu ma ko sax ni ma def daa métti kat ñu nga jàppante ca kaw ñu nga mel ni ñuy baal salsa ñu nga jàppante ca kaw arbit bi tas na ko lu xew. arbitre bi tas na ko lu xew est-ce que du Niger bi lañuy jox victoire waaw parce que Niger bi moo ëpp ay points Niger mo pay point mo tax Sénégal bi da bari avertissement Sénégal bi da bari ay avertissement ma ne ko Ndiaw lem de Niger ak Sénégal sen digënté du neexal lijjanti du neexal lijjanti ba championnat d'Afrique amé ba légui ñom ñaar. ay tàmbulaan saa béy lañu daje du yomb muy diggante Sénégal Niger xanaa sa xel dem na ci Mamadou Yankuba xanaa sa xel dem na ci Yekini xanaa sa xel dem na ci Amadou Sène xanaa sa xel dem na ci Moussa Gueye eh seen troisième combat ngi noonu nag Sénégal Niger. troisième baa ngi nii Niger 1 Sénégal 1 arbitre baa ngi souffle arbitre souffle na troisième combat baa ngi nii Niger 1 Sénégal 1. ñoo tolloo ay point sénégalais bi moo takk ceinture rouge Niger moo takk nge moo takk ceinture bleu da takk ngémbul jëgg li ngémbul li la ñuy wax ngémbul jëgg bu nu paree dinaa leen wax luy ngémbul jëgg wala ngémbul cëgg xanaa da ngeen di dégg wolof naan cëgg desul ci guy Niger bi bi sol na sénégalais bi senegal Niger mu ngi koy wàkk ca kaw Niger moo takk genouillère yi mu ngay daw di roof sénégalais bi da koo bëgg ëñ sol na ko ca kaw sénégalais bi mu ngi koy jéem a fàq mu ngi koy jéem a fàq nigérien bi daa am assistance senegal Niger Sénégal Niger ñoom ñaar. na ko Niger bi bañ na Sénégal bi daa flex na daw ko bët Niger bañ épaulante nañu roof na ko ca kaw oh Sénégal bi wër na ko ndombo wër na ko ndombo pelanti la de wër ndombo Bamba pelanti la de wër ndombo wër ko rate na ko Sénégal bi daan na Niger bi daan na Niger jaar na fa laay faye faye jaar na fa Yékini jaaroon jaar na fa Amadou Sène jaaroon jaar na fa Moustapha jaaroon jaar na fa Babac jaaroon ana Babacar Mang Ndong ana Malal Ndiaye senegal Sénégal Niger ngi noonu le xale bi daa daw fël wër kuddu bi daa fël kuddu bi war daw wër ko ndombo mu def penalty mu dugal nag bii bu rëy diggante senegal Niger waaye am na beneen Nigérien bu dugg de. ku mu war a dajeel sénégalais bi la war a dajeel mu nekk seen troisième quatrième combat eh. xool leen sénégalais yi ni ñuy ziblé xool leen sénégalais yi ni ñuy ziblé dañoo am ndam Sénégal na deux Niger un. quatrième combat baa ngoogu dox ci diggante Sénégal ak Niger Sénégal wan ñu ginnaaw takk ceinture rouge Niger ceinture bleue sànq nag Sénégal am na deux Niger am benn par avertissement la daane Sénégal sànq seen quatrième combat baa ngoogu ñu xool fu wànnin di mujjee ki gëtëm day ñaari réew yu xamante Sénégal daw na jël tànkam Sénégal yenu na ko dóor na ko ci suuf Sénégal yenu na Niger ba ca kaw mu dóor ko ci suuf senegal Sénégal Niger def na mbir Sénégal def na mbir jaar na fa magam daan jaar moom xale bi jaar na fa Yékini jaaroon jaar na fa Eumeu Sène jaaroon jaar na fa Moustapha Gueye numéro jaaroon Moustapha Gueye numéro 2 jaar na fa Papa jaaroon jaar na fa Babacar Mang Ndong jaaroon waaye senegal jaar na fa Malal Ndiaye jaaroon nag. Sénégal Niger ñu ngi noonu le oh. public baa ngi nii le public baa ngi nii le waaye ndam moo neex xale yaa ngi zible maa ngi nii jàkkaarloog journaliste TFM yi El Hadj Thierno Ndiaye Malick Thiandoum et Malal Junior Diagne. ñii ñooy topp mbër yi dañoo kontaan nag ku sam réew ma am ndam nga kontaan ñu ngi noonu le ñu ngi supporter xam nga mbër muy ñëw dañu daale sa supporter booleeg ñi nga xam ne dañuy supporter réew mi ñoo ngi noonu le waaye ana Niger Niger looy layam layami Niger looy layam layami gaawal ñëw. cinquième combat baa ngoogu Sénégal Niger Bi Moy Boy Faye Bok 100 kg plus 100 kg yu tégal yi di Niger arbitre wax ak ñom. Boy Faye mi mom la fi Sénégal ci yakar. individuel final ah. ñoom ñaar ñu ngi noonu lee Niger reculé na Niger sëgg na moo Niger lu xew moo Niger lu xew Nigérien bi reculé na de waaye Niger mi nag démb moo fi daanoon booy fay waaye tey jii nag tey jii nag Sénégal am na 3 Niger 1 cinquième combat baa ngi nii lu xew. mu ngi noonu doxaat ci diggante Sénégal ak Niger kalau bi di Boy Faye mo mo mo moo jëlal Sénégal Boy Boy Faye Séné Boy Faye Sénégal ak Nigérien bi takk ngembulu bula li Sénégal Niger bala ngaa yabati góor ñam ko ñoom ñaar xamante nañu ndax daje woon nañ fi Boy oh Boy Faye li ngay def Niger yaa ngi reculer rek avertissement Niger arbitre bi soufflé waat na dox ci diggante Sénégal Niger Sénégal Niger Sénégal ngembul rouge Niger ngembul bleu Sénégal Niger booy fay attention. निजर भी रामनो पेरे निजर के नारनो निजर के नान द द अवेटिस माची निजर आरबीट भी सुफले वाटनो दिगंते बॉयफाई अंग निजरियन भी सेनेगल निजर सेनेगल निजर senegal Niger ñoom ñaar ñu nga ca diggante senegal ak Niger ñu nga sëgg ca suuf mel ni kuy def lutte au sol booy fay for na tànk ba oh Niger daa daw génn booy fay da doon for tànk bi Niger daw fitti génn Niger mii nag ku mën a tànk la boo xoolee ni mu taxawee. moom Niger waaye sénégalais baa ngi koy takk di ko dajale rek. Sénégal Niger ñoom ñaar ñu nga roofoo ñu nga roofoo ñoom ñaar Sénégal ak Niger ñu nga roofoo ñoom ñaar Sénégal ak Niger ñu nga roofoo ñoom ñaar. ñaari poids lourds yi nag dañ dañoo am doole. oh booy fay Niger bi mu ngi lay jox tànk bi rek de. combat bi du yomb de diggante senegal Niger. Sénégal Niger ñu ngay puusante ñu ngay puusante Sénégal Niger Niger bi nag Niger bi Nigérien bi nag daal tëj bëre bi arbitre bi daa àtte combat bi ni ni booy fay fi nga jàpp waroo faa jàpp avertise ko benn avertissement kon Niger Niger am na ñaari avertissement Sénégal am benn Niger moo ñu wan ginnaaw Sénégal moo jàkkaarloog ñun. Niger Sénégal léegi nag Niger ay cherché contact bi nag léegi nag Niger mooy cherché contact bi Niger nag léegi mooy cherché contact bi hey Sénégal Niger arbitre bi tas na ko lu xew mi-temps mi-temps waaw booy fay entraîneur mu ngi wax ak moom entraîneur baa ngay wax ak moom walaay ndeysaan saa béy toj na Afrique moom mi li mu yor ci médaille buñ ko ko fayoon mu nekk milliardaire eh Ambra Sarr ma ne ko eh Ambra kii mooy relève Boy Bambara kii mooy relève Doubales ñooñu nga xam ne ay champion d'Afrique la ñu woon dem fu ne ci lamb mooy Ambra mu ngi noonu le di mag ci Elisa Sarr waaye Boy Faye dafa mel ni Ambra Sarr nga ak moom Niger bi it entraîneur ma ngay wax ak moom. Niger bi entraîneur baa ngay wax ak moom mu ngay naan walaay ndeysaan mu ngay naan mu ngay fomp moom Niger bi arbitre baa ngi leen di woowaat. jóge nañu mi-temps arbitre bi soufflé waat na diggante Niger ak senegal senegal moo ñu wan ginnaaw Niger moo ñu wan kanam Niger a ngay jéem a for tànk Niger a ngay jéem a for tànk ci 120 kilo bi oh may na ko tànk attention Niger takk na Sénégal Niger takk na senegal booy fay la Niger takk na Sénégal lu mu nar lu mu nar Niger takk na Sénégal booy fay attention moytul ma Niger bi witti na ko witti na ko site ba ca biti la amee Sénégal da ko witti ca biti waaye arbitre validé wul bi arbitre bi soufflé waat na diggante Sénégal booy fay li ngay maye bari na booy fay li ngay maye bari na wóorut làmb loo may sa adversaire mu jël ko ñibbi bala ngay comprendre ak kër ga. Sénégal Niger oh ah, stade bi neex na stade bi ñu ngay yuuxoo ba léegi ñu nga ca Sénégal Niger sama 20 kilo bi dox ci diggante Boy fay ak nigérien bi booy Faye ceinture rouge Niger ceinture bleu waaye da gaaw a sotti ndax ay poids lourd lañu kenn ku nekk mën nga bëri ko ñaar fukki kilo cent vingt kilos la ñuy posé ñoom ñaar Niger Sénégal Niger Sénégal Niger Sénégal ñu nga croisante ca kaw li ñu def mooy épaulante dañoo épaulante ñoom ñaar. bu ko arbitre bi arrêté nag Boy Faye mooy am ndam parce que nigérien bi am na ñaari avertissement booy Faye benn rek la am senegal Sénégal xoolal ma borom drapeau ya bu ruus ak bu bleu Sénégal moo am moom moom rouge Niger moom moom bula ku ci daan dañuy yëkkati sa drapeau wàcce ba ca des ñun la nga la nga ñibbi Sénégal Niger. ñu nga ca ba légui légui arbitre bi jéxal combat bi nak Sénégal Niger arba arbitre ba ngi nan béré leen arbitre ba ngi nan béré leen Sénégal Niger arbitre bi arbitre bi tass na match bi wa Sénégal gagné na. drapeau rouge ba jóg na Boy Faye moo am victoire ndax Niger bi dafa am deux avertissement diggante Sénégal Guinée Bissau fàkk na ko jeex na jeex na jeex na jeex na baat tontu la baat tont la wala arbitre bi validé dewul jël bi eh Sénégal daan na Sénégal daan na lii daal baat tont la ŋànk na saak ba ŋànk na saak ba ay mbetem kuy ŋànk na saak ba witti ko Sénégal Guinée Bissau baat ak tont la arbitre daa suuf la rek mu fàqat ko mu rëpp eh Sénégal. ordinateur arobase arbitre baa ngi wax ak ñoom avertissement verbal waaw ordinateur arobase ca ñaari mbër yaa ñoom ñaar ku ne am avertissement acca bir solo waat na deuxième round diggante Modou Faye ñu naan ko ordinateur ak Babacar Mbodj ñu naan ko Olobas mooy représenté Gambie mo dëkk Mbulub wala nga ne moo dëkk Sokone moom Olobas moom la ak Modou Faye borom ngaat ñaxaar mbor Ibrahima Diouf bi mu ngeen jàkkaar lool Modou Faye ordinateur su ma nee sama xel dem si Ndoof Kumba dafa am Ndoof Kumba Diouf am Kumba sire Diouf am pap sire sen tur sax xam parce que dañuy changer tour waaye Ndof Kumba daal ñi nan ko pap Siré maa ngi nuyu di ko ziar ki ñu way ko ma dofen Diouf tamit bu sëñ bass bu bu maître Basirou maa ngi nuyu diko ziar ñoo ñu samay frère lañ di wa ñaxar ma leen di bëgg di bëgg wa ñaxar yëpp waaye suma né ñaxar sama xel dem ci mam wali sen fakhman borom touba ko da dom day lay sar combat baa ngi noonu diggante ordinateur Sénégal ak arobase Gambie arobase jël na ordinateur mbotti mbotti wala lan ordinateur arobase dem nañ faqat dara xawul ci ordinateur arobase ñaari mbodi yi oh, nañ ordinateur arobase ña nga roofoo su ma sama lem senal ñu borom jaasi ñaari mbër ya nga ca ordinateur de gauche ceinture rouge Sénégal contre arobase de droite ceinture bleu Gambie à l'occasion oh. de la 9e édition du tournoi de lutte africaine de la CDAO pour raffermir les relations bien sûr, pour échanger les cultures. Ordinateur base deux champions qui sont en train de discuter la finale des catégories 100 kilos en individuel ordinateur arobase ñaari mbër yaa nga ca def nañ premier accrochage ñamante nañ waaye ni ma leen ko waxee ñoom ñaar xamante nañ yàgg nañoo bëre nee naa la depuis 2015 ñoo ngi daje ci géew di bare Ambroise Sarr jóg na ndeysaan mënatul toog jog na di joxe consigne ordinateur arobase ñaari mbër yaa nga ca ordinateur arobase seen bi du mën a yomb ñaari champion la ñaari ndaanaan la ñaari bërikat la ordinateur arobase ordinateur faxat na ko wiñaar na ko daan na ko se ordinateur daan na arobase wiñaar na ko daan na ko Modou Faye ngi noonu mbaru Ibrahima Diouf bi borom ngaan ñaaxaar daan na Arobase Arobase comi na c'est dafa mën a bëre moom ordinateur dafa mën a bëre Arobase ndeysaan ma ngay xiiru si ginnaaw am na lu ko métti Modou Faye daan na ko dafa mën a kele boobu noonu muy def daan na ci ay poids lourd na ci ay champion moo Modou Faye ordinateur le grand champion borom ngaan ñaaxaar mbaru Ibrahima Diouf Seydou Koumba xam naa nelawul fam ne ca France nelawul ndeysaan Ibrahima Diouf bu ordinateur du bëre du nelaw malgré décalage horaire bi du nelaw c'est un champion waaw nee na ko dodo arobase da ngay jooy ndeysaan arobase da ngay jooy ndeysaan gaa yaa ngi koy yóbbu Le site numéro 1 du sport au Sénégal, sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android.